asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm ak sutura ak fanu gudd wu ànd ko gwér a ko gwérle comme ko baaxoo def saa su nekk rek tey teewaat nañ fii ci seen seen bi di Diwane TV di wax ni ngeen wéy di abonné yi te ko aimé comme niñ ko baaxoo def saa su nekk rek mbokk yi tey jii ñu indi indilaat leen secret bu am solo boo xam ne dafa jëm ci képp koo xam ne dangaa bëgg jël jigéen ci lu gaaw li tax ñu indi ko nag mooy des fois nga gis góor goo xam ne day bëgganteeg jigéen ñàkk si moom lu nekk dem ba war koo takk joxe ca lam la mu am ba pare paaraaya rawatina maire di ko dawloo naa ko faaw nga indi nangam faaw nga indi nangam te jékkuwu ko loole lépp la ci parent yi di jublu en général mooy yàq diggante bi di ko laaj lu baree baree bari te loolu dafa bari loolu ci jamono ji mu bari ñoo xamante ni bii boo xisee ba am nañ teg ñoom ba bala ñu laa jox soxna den la miraas ba nga jeex tàkk tàkk tàkk loolee nag leen indi loo xamante ni bii képp ku bañ mu dal la te nga bëgga jël jigéen xam ne ba bëgganteeg moom ci kàttanu suñu borom dinga ko jot ci lu gaaw defal lii ndax parents yi léegi dina doy waar dunoo mën a laaj lool lool lool te jamono neexul da ngay bëggante nit ba war koo takk ñu laaj la ci cinq cent mille wala sept cent mille bu fekkee yoroo ko nag te fekk bëggoon ko lool ñàkk nga ci moom lu nekk ba mu saas fa ngeen di doxee tàqali ko te loolu xam ngeen ne lu méttee métti la waaye daa loolu mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a seetlu seeni mbir incha allah muy koo xam ne daa bëgg a jël soxna wala koo xamante ne bii day bëgg a tukki wala muy wàcc ab tukki wala ki am aajo te bëgg a xam saraxu aaja bi waaye sunu ndomba resel gi nga xamante ne bii dafa ànd ak kaaraange ba pare tam képp koo xam ni am nga kolo lu la saw fit may rek defal moom fépp fu ni ragal naan des fa dem ba fa demee am gàllankoor mën nga faa dem mu doon ndomba goo xamante ni bii kéemaan la day ànd ak wegeel goo xam ne gàññ la ak kaaraange waaye nag ànd ak xëcc wërsëg téere foqat bi ma nga fi foqat mooy loo xam ne day xëcc wërsëg sunu jaaro bii nga xam ne day dox ci bayre ak wërsëg ak kaaraange waaye nag téere bii nga xam ne day xëcc mbooloo ñu koy wax weteg ndeyjoor gi ci lu yéeme ak beneen téere bi nga xam ne day xëcc barke ak mbooloo ànd ak gudd fan ak wërsëg moom itam mi ngi fi xeeti cangaay yi bayre am na bayre pour mbooloo xeeti cangaay yi nga xam ne day indi wërsëg yow mi nga xam ne dangaa yàqule ba say mbir yépp taxaw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu nu jëflantee du mat une semaine mbooleem la mos a nekk ci yow dañ ci kàttanu suñu borom yow mi nga xam ne dangay ngay doxle lool te bëggoo yàqule na nga jokkoo ak ñun ci kàttanu suñ borom te lépp di alxuraan xeeti càngat yi nga xam ni ay bayre jaay la mi ngi fi bayre jaay am na ci boo xam ne ñu ngi koy wax xaas ngir njaay mu dox xeeti bayre jaay yi bu ci cuwaay bëgg rek xam ngeen ni bayre mënta ñàkk ci doomu aadama bayre mënta ñàkk ci doomu aadama moo tax tey ñu indi leen ci lu ama am solo ci kàttanu suñu borom mbokk yi waaye tam yéen ñi nga xam ne yéen bëgg kaaraange mi ngi fi garab gi ñuy wax garabu kër gi muy loo xam dafay dox ci góor goo xam dafa néew doole ci wàllu wàllu sëy wala mu ne ba man yom wàññiku wala sax daanaka muy gaaw a jot boppam ci wàllu néegu sëy jigéen ñi nga xam ne dafa bëgg jëkkër incha allahu rabbi yéen bëgg déposé ay kayit wala yow xam da bëgg ay kayit yow bëgg a tukki ci kàttanu suñu borom loole lépp lu ci waaye mën a bëgg rek na nga jokkoo ak ñun te lépp nag di ci alxuraanul karim sell lool nag te doon lu wér fii lu wérul nekk fi mboolem lu leen du jax wala ñu leen koy wax rek lu nu man la lu wér la incha allahu rabbi ci kàttanu suñu borom alxuraanul karim rek la ñuy jëfandikoo ak xam-xam yi fi mag ñi bàyyi. incha allah mbokk yi mi nga xam ne yaa bëgg a jël jigéen ci lu gaaw dangay bind aaya bi nga ubbi ayin gi nga def seen tur ci biir muy ina alladi farada alayka alqur'ana laraddooka ila maan bu ko defee ayin nga ga nga ngay yaatal tur ku góor ki féete kaw turu ndaw si bëgg féete suuf ba pare nga tëjee ko salaatu ala nabi comme nii nga ko gisee boo déggee nag man salaatu ala nabi mooy li ma mujjee bind suuf muy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim loolu mooy ñaan tëjee ko salaatu ala nabi xam moom ngay mujjee bind ba pare nga tëj miim ayin gi tëjee ko salaatu ala nabi nii ma ko defee nga jël téere ba boo amee daal nga tag ko ca ron lal ba boo ko amul nga yëkkati sa mat laa ron ko ca ci kàttanu suñu borom jigéen joo bëggantal da nga ko jël ci lu gaaw a gaaw incha allahu rabbi yal na ko suñu borom subhaanahu wa taala barkeel te defal leen ci ndam ci barkeb alquraanu karim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu